wa kadalika cheikh allama ibni baas mu ni xam naa di jihaad ci yoonu yàlla ngir wattu sunna ah xam naa ni ku set pas-pas la wóor na ma ni biteem ni mu bi biteem ni mu setee noonu la biiram setee ah mi ngi dëkkee woote ci daawa bi ak li muy def ay effort ci yu nu gërëm ci wéral ay xadis ak di ko daayifal mu ni noonu koy ñaanal yàlla fay ko yiw ci lim njëriñ ci hada huwa taqdirul ulama amma al allaama ibnu usaymin moom bi ñu ko laajee dafa wax ni lim jot a jonjog albani da bëriwut waaye lu mu néew néew wóor na ko ci ni ku xër la ci ngoy ci sunna ak xeex bida ak setu pas-pas ci ay jëf ak ay wax nee na liiral naa ko lu bari waaye ni muy amee ni mu amee mën a ci taalif mu ne néew na koy gis ko fa al allaamatul tuwaydiri nga xamante ni diggante ak Cheikh Albani yu yu wex xat am na ci ci diggante muuraay kanam jigéen bi demee noonu ba nga jàpp ni ñii buñ daje woon dañuy xeex subhaanallahi alazim borom xam-xam yi yàlla yàlla fay nañ ñëw gis nga dafa am loo xam ne xilaaf la mënut ñàkk xilaaf boo xamante ni nekku ci wàllu pas-pas loola mën nay am léeg-léeg ñuy gëstu rek ba keroog maadaama kii mujtahid la kem ñun kay ñun ñëwarul xilaaf ñun ñi nga xamante ni xàmmeewuñ sax kuy mujtahid ku dul mujtahid ñëwarul xilaaf waaye koo xam dafa àgg rukkatul ijtihaad kooku dëgg yàlla mën na ijtihaad bu juumee yàlla bindal ko benn yiw bu amee dëgg yàlla bindal ko ñaar comme ni ko yonent yàlla waxee sallallahu alayhi wa sallam demoon nañ ba ëcc xëccante bu kii taalifee sànni ci saaxa bi kee taalif sànniwaat allahu akbar waaye tuway jiri biñ ko laajee lan la wax bi Cheikh Albani faatu lu mu wax mu ni al aan al albani alamun min alaami sunna attaalu fiihi iaanatu ala taali sunna allahu akbar albani drapeau la ci drapeau yi sunna yi xas ko mbaa ŋàññi ko mooy xas sunna loolu la Mouhamad Sidi Hassan Khan doomam di nettali benn borom xam-xam ñu allah kooni bu mu jamonoontee lool ndeysaan ñuy weccante baat yu mel nii mu ni keroog bi mu faatoo mu allah kooni mu ni sama bàyyi réerut keroog mu ni daa jooy bu dëgg yépp mu ni tey benn biddéew ci biddéew yi xam-xam yi fàq na wàtt li doxoon sama digganteeg moom juuyoo yi gis-gis la rek waaye awma lu may werante ci ni ku baax la doomu nday lii de ay njàngale la yu am solo yoo xam ne jaaduwaat na tey delloowaat umma bi xaasatan alshababa min ndaw ñi soññaat leen ñu xam ne lii moo nuy xaar lii de moo nuy xaar wallahi atal lakin qassartu guddal naa lool waaye li ma bàyyi maa ngi leen di seedaloo ni moo ëpp li ma indi fuuf sax awma lu may weral ci li ma bàyyi ëpp li ma indi talxiis naa talxiis ba xamatuma fooy jaar am na foo yoo xam damay tëdd dem rek ndax bañ waxtu kon dama bëgg a wax ni ku def juróom-ñaar fukki at ak nangam ci liggéeyal sunna mënuñoo talxiis dundam nii ñu xam ne lii moo nuy xaar na ndaw bu nu ko bàyyee kenn nan gëm ni nu na laa yazalu taifatu min ummati mansuur zahirina ala xaq mansuurin comme ni kenn taala waxee nan fexe bokk ci nan góor góorlu loola du lu ñuy toog du lu ñuy wax alal alsun déedéet waaye lu ñuy jëfe maa ngi bàyyi xel sama mbokk ndongo yi xam jëfe nanu gën a yitteel leneen lu dul xam jëfe xam jëfe nanu gën a yitteel leneen lu dul xam jëfe kii ko wax ak masala bi nii la demee am nay wuuteeg ma ngi ci de loolu seen moo ci nekk xamal jëfe yàlla subhanahu wa taala wuutee borom xam-xam du la ko laaj ndax lii daa ci rutbatu dafa daayifal dafa dafa nangam yow moom doom yowmal xiyaam ñu la koy laaj moom doo ko fekk sama wasila xasanaat doo dem yowmal xiyaam mukk ñu naan la sunna sii nga xamante nii ñi nga doon werante wér naa ko wérut wér naa ko jur ay coow coow coow yow nga toog gis ni wérut la nga jàpp toog fas kenn du la ci buggal insha allah kon maa ngi bàyyiloo xel ndongo yi ni tey aajo woon na tarbiya waat rawatina ci borom xam-xam yu mel nii jàng seen dund jàng seen siyar te xam ni xam-xam dañ koy jàng xam-xam du jóge ci sabakatul internet kenn du jàngal boppam la la la waajo doon nettali kay jàngaloon di ba alxabatu sawda gis tomb ba ca ba ca suuf mu génn mu ab ab weñ saw ca mu lii rek ci alxayatu sawda dafa di jaan la mooy jàngal sa bopp jàngal sa bopp moom daanaka mooy kuy taxan guddi rek bu la jaannee keppet mënoon ngaa bàyyi ba leer nga ñëw lan lay wax kenn du jàngal sa bopp ku toll ci dox mën ngaa dox ku toll ci dox bul daw ku toll ci raam bul jéem a dox boo tolloo ci jàngam dox nangul ñu téye sa loxo bi la moom wallahi du gàcce amu ci kenn lu dut fii la jaaroon kon nan góorgóorlu baax a baax nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq nu ngi ñaan yàlla mu barkeelal na jotaay bi te fay cheikh al albani xayral jazai an ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla def jamono jii ñuy nettalee dundam mboolem lu mu taarifal lislaam ak yi nga xam ne def na ko ci ay ibaar ay juhudam yi nu xam ak yi nu xamut yooyu yal na yàlla def ko mu nekk ay yiw ci ma mawasin xasanaatam yal na yàlla def jamono ji ñuy waxee lépp mu nekk ci rawdatun min riyadul janna yal na yàlla jéggal koy bakkaaram nangul ko wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulilah ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax ci li nga xam ne mbokk mi gaaral na ko mu nekk loo xam ne lu mu maîtriser la boo dégloo li nga xam ne lu mu maîtriser la lu mu xam la bu baax moom nag li ñu koy ñaanal mooy yàlla subhanahu wa taala mottali ndawam gis nga boo jàngi bind borom xam-xam yi dañu wax ne borom xam-xam gudd fa la ko ji Cheikh Nasruddin Albani li ñu wax yëpp li ñu wax yëpp yàlla subhanahu wa taala wërsëgal na ko gudd fan moo tax mu mën a réaliser projet yu mag yi yàlla na ko yàlla fay loolu la li nga xam ne moom la fi mbokk mi wax jàpp naa ne sax mën nañ ci mën nañu ci bañ a répété waat parce que jàpp naa ne mën naa gën a lëndëmal mais jàpp naa ne alam bi mu doon waxtaane Cheikh al Albani ni ñu toogee mel ne ay picc ñoo tax suñu bopp mënoon nañu continuer nii ba ëllëg ni gi nii parce que dundu borom xam-xam moo mel nii rawat na koo xam ne dafa jiitaloon sellal ak jëfe la nga xam ne moom lay jàng maa ngi ciy faxastalu benn téere ci ñu bind ci moom lenn ci ay ndongom yi di nettali na ñoom dañu doon tukki ci waruwaayam waaye ci yoon wi seen oto daal di def choc oto bi daal di tukki ñeneen ñi génn nañu waaye cheikh bi moom mu ngi ci biir moom génnagul léegi ndongo yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ngi téye seen bopp du yuuxu yaa saati rustur yaa saati rustur yow yàlla mi suturaale yàlla nga sut yàlla mi suturaal ci kii mais moom ci fa mu nekk noonu la place boobu la ak fitna ba mu fa nekkee lijjantiwul fàtt na problème am comme ne ko mbokk mu waxee rek benn la rek mais mu ngi leen ne bu leen wax yaa saatir wax leen yaa sittiir parce que bu amee xadis yi wax yaa saatir xadis yi wérul kon gis nga loo jël loo jël ak leneen rek ku ko xam xam nga ko dundam benn la kon yal na yàlla bari ñu mel ne moom yàlla xirtal ndaw ñu itam ñu jéem a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax jéem a sonn bu baax a baax a baax jéem a xam seen diine jëfe ko loolu lu yomb borom bi la subhanahu wa taala kon bañ naa guddal te duma guddal insha allah léegi bu dee ustaas bi mu ñu mën a may ñu ubbi li nga xam ne moom mooy buntu débat yi xëy na comme alhamdulilah mu ngi doon leeral ñu ngi doon déglu itam jombul am na ci ay iltibaasaat yoo xam ne wax al uquuli léegi ñu jéem a xool bu dee am na koo xam ne am na contribution ci li ñu doon wax na indi turam wala koo xam ne ab question la mu indi turam après dinañ xool kàddu gi ñu joxe ko te danañu ko limité bu baax a baax.
xam naa qabla daalik sunu amoon dañu gën a damay faral di wax mbokk yi lu dul ci jotaay bi mel nii bokk na ci liy gën a jëmmal waxtaan te di ko amal solo mooy laaj yi mu tënku ci liñ doon waxtaan dana am solo lool. bañuñ ko laaj ci leneen waaye dañ ko laajee keneen yooyu moom bokk na ci yiñ daan def ngir di noseel ndax léeg-léeg xalq bu amee rek ci wax ci lii wax ci la mën naa indi ay lënt wax dëgg yàlla jubluwaayu bax bi moo nekkoon bu ñu xamee bu ñu jógee ñu mën a jëfe ji insha allah kon lu lépp loo xam ne fii day tënku ci mawdu bi nga xam naa mooy gën a am solo insha allah loolu dinañ la ci dimbali ku ci indi leneen lu bokkul ak kii yi dañ koy rëcc jazakallah xeer kon Cheikh Ndiaye naam Aboubacar Sall Aziz mu dem ah Abdoul Majid ñaari question yoo xam ne xëy na damay commencé ci sam boobu لو أحد bu ñu paree waaw ginnaaw rafetlu waxtaan bi bu baax a baax sama question bu njëkk bi dafay xaw a dem ci euh, la mazhabiya bi nga xam ne ñu ngi koy dund tey ñu settantal ko it bu baax a baax xool ko bu baax manhaju Cheikh al Albani suñ ko xoolee dañuy gis ne moom moom dafa libéré wu ci mazhab waaye moom itam boo xoolee lim bind lu mel ne tamaamu minna mu ngi ciy jógal itam rafdu bi nga xam ne moo moom la rafdu ak taqlid toppandoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu nekk manhaj bu leer mu nekk manhaj boo xam ne itam tolloo na ak talaam alhamdulilah mais dañuy gis tey ñoo xam ne xawuñoo xàmmee diggante jamra ak tamra ñaari baat yi mënu ko mu firi bi xamoo ko jamra ak tamra ngir luñ jege mais day wax ne moom parewul pour tënku ci benn mazhab moom dafa bëgg a nekk sipul muy tëjit boobu mazhab muy tëjit muy tëjit moom day ëpp mais sipul muy tëjit fa xadis wéree rek pare na pour jël bu wéru wi itam pare na pour discuter ko dootuñu nangul toog pour jàng parce que cas yu demee nii dama ci dund ay cas yu bare bare bare bare bare bare bare di même sax di- même ci loolu le ci ngay gisee koo xam ne littérature arabe mais da ngay gis xadis bi comme parti ni mu ko firée rek noonu itam la koy jëlee fas yéene ko jëfe jël ci ay nit itam pour ñoom ñu fas yéene ko jëfe ma jàpp ne lii bu yàggee danañuy wax feeñal sunna mais bu yàggee rëy sunna ak réeral sunna sax lay dee ci sama analyse quoi soo gënee mun a ubbi sama bopp ubbi mbokk jàng mbokk déglukat yi jàpp naa ne kooku dana am solo lool kooku mooy première question mun naa indi deuxième question alhamdulilah wahdahu wasalaam ala kulli xaal laaj bi laaj la bu am solo bu nurul lu xóot te xóotu laaj la bu am solo lool nurul lu xóot te xóotu ku def seetlu te amul diqa ci mawdu bi ni nga ko tëggee mën naa ni dama gën a jëmale mbir mi ci nangoo jàng loolu lu mel nii laaj li ndax damaa seetlu ni bokk na ci li ngay wax laa sakka lu am la lu nu gis la ñun ñii du loo xam ni kenn rek a ko gis waaye lu am la moom daal noonu dong ngay def da ngay gis koo xamante ni moom daanaka comme ni nga ko waxee xàmmewul dara waaye dafa am istiqlaal taam tënkuwut ci kenn moom daal naa ko jëlee ci Buxaari yi su ma dikkee daal di ko jëlee sama biir kër fekk mbir mi jëmewut noonu ndax nit ki dana toll foo xam ne laa sakka ne des na koy teete problème bi nag mooy ku koy teet teet nu mu koy teetee foofa la wax di nekk kon ma jàpp ni fu mel ni fii nuy dund nga xamante ni mën naa ni bari wu ñuy borom xam-xam noonu laa ko mën a tudd ndax ay ndongaa fi ak ay borom xam-xam te boo duggee ci biir ndonga yi da nga fekk wax dëgg yàlla ñàkk bu yar feeñ ca feeñ gu tax benn ndonga dootul am ndimbal lu mën a dimbale sax morom ma ndax xeebante gi am te bu ñu waree dellu ci borom xam-xam ci ku ñuy dellu mu nekk muskila bu rëy laaj bu xaw a nuru bi laaj naa ko Cheikh na Mouhamad Ahmad loo ci suba lu mel ni ñàkk yar gi nga xam ni nit ñi dañ koy ñàkk yar ci wuute yi dox ci diggante borom xam-xam Ibn Baz lii la wax Asamin lii la wax yow nga daal di jëkk bëgg fëggale bopp yi yu mel noona laa shakka ni bokk na ci li ñu ko yóbbee ñàkkub yar beneen bi tees mooy fiqhul xilaaf xam dëgg-dëgg wuute lan la laaj tarbiya biñ ci war a am nga xam ne bu ñuy jàng ci ay téere waaye bu nuy yaru la nit ki topp borom xam-xam mu am ca lum ca jëlee am ca lum dollee ko am lum léer am lum jëfal boppam doo nga am labat laa chaque ni loola jaarul ci beneen bi ci des mooy soo gisee nuy soññi lu bare bare bare ci nangoo jàng rek nangoo jàng ak jëfe laa chaque ni jàng ak jëfe bu gën a yitteel nit ki yii yépp ñuy wax dootul am dootul ko talati tey borom jëlu bis ngay laaj kan ci ñun rek mooy koo xam ni aqida rek na ma wax jàng nga ci ñaari téere ba mu jeex walaw ixtisaara kese da ngay gis ni dëgg dëgg dëgg jàngam amut kon bu jàng amut coow di ëpp damay ragal ni fan nar a jëm du sotti dëgg la Cheikh Nasir Albani mazhab istiqlaal taam la amoon moom amoon manhaju dundinam te manhaju dundinam mooy li may baamu toujours ci baatam olof mooy xam jëfe moom xam jëfe ko gën a yitteel leneen yaru ci ak tasfiya wa tarbiya moom nag borom xam-xam la yegg na ci martaba boo xam ni istinbaat ay ahkaam wala ijtihaad wala qiyaas yooyee mën na ko loolu ku liiral ku ko liiral téere bi mel ni bi ngay wax da nga koy gis am naa nun ñi nga xam ne ay ndongo la ndax dañuy tënku ci ab mazhab ndax dañuy tënku ci am ngir ndax dañuy tënku ci am mbooloo déedéet man damaa jàpp ni mbir mi du tënku ci madhab wala tënku ci ngir wala tënku ci mbooloo dëgg la tënku ca tënku ca am na ay njariñ yu mën a jural nit ki waaye am na lor yu bari yu mu ko mën a jural lor ya mooy tënku ca dana yegg ca gis sunna mu wóor la ni lii moom waadaxan wuduux alchamsi fi rabiati nahar te doo ko jëfe parce que tënkoo tax doo ko mën a jëfe waaye tinkeeku tamit am na ay yàq yu bari yu muy yàq waaw bu fekkee tënku am nay njariñ am nay yàq tinkeeku ba mu ëpp it am nay njariñ am nay yàq kon léegi nag nu ñuy def yaakaar naa loolu moom mooy gën a am solo ci laaj su boobaa wallahu aalam damaa jàpp ni delluwaat bu baax a baax a baax cee cosaan ya dafay am solo delluwaat ci cosaan ya delluwaat ci cosaan ya nag baat boobu su ma ko waxee la ma ca namm mooy kenn ku ci nekk xam te xam nga jaar fa mu war a jaar te leer su ma nekkee dem jëfe ji dama gën a lépp baat bi baat la boo xam du tey rek laa ko dala baam baat la bu rëy fi nun ndax xam nañ ni ay goj yu bari da cee laxasu nit ki su fekkente ni mi ngi jàng gis nga coow yi lu mu bari bari bari kii ngi fee kee nga fee kii wax lii kee wax lee lu coow yi bari bari bari bari yow boo amee lënt rek man dama sa lënt bi li ko gën a gaaw a diñ demal jàngi booy jàng léegi rek lënt bi dañ kon xulul yi mën naa am mu nekk yu bari waaye su ma ci doon tudd damay wax ni delloowaat ndaw ñi ci nangoo jàng ca source ya ca jàngukaay ya moytu yi ma jublu sànq kooku benn la beneen bi ci des laa chaque nit ki mën naa gis am mbooloo moo xam ni ñu nga tënku ci sunna di jëfe sunna juuyoowu nag njàngale yonent bi ak mun mën a tuddee seen bopp ñoo xam ñun xale koñ bi sax lañ tuddee seen bopp xam nga tur yi moom mën naa bari bu yeboo sax lañ tuddee ñun xale koñ bi yow daal jëla sab charte mooy xoolal bu la kenn wommat ci loo xam ne jàpp nga ne lii lu juuyoog laaj doxalin yonent bi sallallahu alayhi wasallam bul tënku tënku guy tax tënku ga dana tax bis boo gisee sunna war koo jëfe tënkoo la koy jëfe ñetteelu tomb bi mooy boo gisee tawat jinu dal ñàkk a jàng am na ci wàllu bu rëy waaye ñàkk ixlaas bu ñàkk jàng dee bàyyi ji ñàkk ixlaas ay yaay ji ndax da ngay gis jëf yi ak wax yi bu tombeek résultat yi moo lay wan ni dëgg dëgg dëgg nit ñi def ngir ma sama sama kii mooy sama cheikh def ngir fii mooy sama mbooloo wala fii maa bokk na ciy feeñ lu bari te yoo am solo kon daal delloowaat nit ñi ci source ya yooyu ñett daal mooy yéen gis nii wallahu aalam mën a nekk saafara tey jazakallah xeyran léegi sama ñaareel question bi mooy xëy na lu ma yàgg dégg la même mois bi bi ñu génn octobre bi sax xot nañu ma ci ci tali ah wax ci indil nañ ma ko mais man aw ma ci xam-xam dëgg-dëgg ma jàpp ne comme dundu albani ni li nga ci teg nii faxastal woo fen wala kaset ya nga déglu faxastal woo fen fu muy tontoo wala fu muy orienté benn borom xam-xam am na borom xam-xam boo xam ne ku mel ne docteur Yusuf al-Qaradawi xafidahullah dana ko yàlla dolli wott moom moomu dégg naa dégg ci laaj nañ ma mu ngi yàgg question bi de mais boobu rek yàlla daf maa nattoogul ma daje ku ko mën tontu ne docteur Cheikh Nasiruddin Albani daf ko mos a wax ne te téyel sa làmmeñ wala sa loxo ci suñu diine ji yaa ngi koy lëndëmal man nag ci téere Cheikh Nasiruddin Albani yi ma ci jot a liir yi ma ci jot a gis yëpp man mosuma ci gis wax jooju may laaj ndax wax jooju loo mos a faxas salla wala déet pour ñu mën a avancer ci yeneen question yi waaw.
alhamdulilah ala kulli xaal sunu àll day gudd a gudd ci yër. li nu déglu ci ay kaset donte bari na Cheikh Albani moom li ma ko li ma am ci ay kasetam moom bari na lool te li ma ko déglul moo ëpp sax li ma ko amal ci kaset ndax déglu naa yu bari yu ma amut ragal naa yor naa ci moom daanaka lu ëpp téeméeri kaset ak nangam te yépp déglu naa ko toog naa jot jox ko jot déglu ko bu baax a baax yër naa ci ay taalifam lu bari yër naa tamit ci ay waxam waaye wax jooju wax dëgg yàlla day moom li awal li ma xam mi ngi doog a joox sama nopp ànd ak nag ay weccante yi baat moom doxoon na seen i diggante te loolu mooy weccante gi dox ci diggante borom xam-xam ci ay njuumte ci taalif kee taalif tontu weccante yooyu day faral di am laa sakka ni ki nga xam ne dëgg moo ko tax a jóg moom bu gisee dëgg da koy topp ànd ak nag Yusuf al-Qardawi rahimahullah moom ku nangu na ni Cheikh Albani moom muhaddis la bu mag loolu moom wax na ko soo demee ci ñenn ñi nga xam dañ lay taalifal ci dund Cheikh Nasir am na ci seede yu nu indi ku mel ni Yusuf al-Qardawi seede na ci seede yu am solo wane ni borom xam loolu moom kenn werantewu ko la shakka li tuway jiri di wax rek jam ko mooy jam sunna kooku moom kenn werantewu ci amma wax ju muy wax di ko ŋàññ ñi wala mu koy wax wax yu mel noonu lu wuuteeg seen bindante yi ñuy def ci ay téere loolu moom boobu kàddu moom wax dëgg yàlla maa ngi koy doog a dégg wallahu taala jazakallah xeyran kon léegi Cheikh Ndiaye moo njëkk bind
sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw sant yàlla subhanahu wa taala julli si yàlla bi sant so ñu ngi rafet la taw ñaan nga xam ne yàlla yàlla ko xam-xam bi wala barkal ka boobu benn ci kalaaj mooy seen boobu li ko Cheikh Al Albani mën nañu ne mu jënd muy gàttal waaw incha allah benn bi jiitu mooy li ko mën nañu de mu jënd boobu mooy bi jiitu waaw ñu continuer naam dañ koy tuddee mujaddid te loolu mooy li am sax mujaddidu haada al asr ànd ak nag mujaddid nit ñi dañuy jàpp ni mujaddid mën a nekk kenn mujaddid mën a nekk sax fukk al imaamu suyuti bind na téere tuddee ko al mujaddidiin nee na benn dëkk sax ñaari mujaddid mën nañ faa nekk kii mën naa ñëw di tajdiid ci nangam kii di tajdiid ci fiq kii di tajdiid ci aqida kii di tajdiid Sénégal kii di tajdiid France kon mujaddidu yi moom mën naa am waaye albaani moom amul lu ñuy werante ci mujaddid la woon
moom dina question mooy que ni damay laajte ba xam ñi nga xamante ne dañuy jël wax yu ñaaw di ko teg si Cheikh Albani wala ñu koy tuutal wala ñu koy doyatal si wax yi wala seen biir waxtaan wala ñu naan bu kenn jël si moom ñooñu may laaj ñu ngay tuutal wala ñu koy doyatal wala ñu naan bu kenn jël si moom ñooñu li ñuy wax fan lañ ko teg ba xam ñàkk xam-xam la wala boobu dama la laaj daal ba xam ñoom tey wax fan lañ ko teg la
waaw alhamdulilah am nañu koy def waaye man damay jàpp ni loola jërul sax xatub dënn ndax yàgg naa am ci kaw suuf wax dëgg yàlla soo gisee borom xam-xam yi di leen défendre naan at taanu fii taanu ala sunna loola day tekki ni xam nañ ñi am nañu koy taan loolu moom mënul ñàkk Cheikh Mouhamed Ahmad loo laaj naa ko ci suba laaj bu mel nii mu ni ma ñu baree bari dund Cheikh Albani lu jar a jàngaat la ndax buñ ko xamoon dëgg ni mu baaxee ni mu laabee ni mu ubbeekoo liñ koy jiñ ci lañ xam ne ndeke du ko loolu moom wax na ko ci suba ànd ak loolu ma wax la ni am nañu koy wax am na ñoo xamante ni man dama gëm ni dafa ñàkk a tege ci xam-xam man ala sabilil misal man wax dëgg yàlla su fekkente ni fàttewuma téere bu ndongam albani sax laa njëkk a xam ci téereb albani yaakaar naa nuxumal faraid laa njëkk a xam ci liñ settee ci saxabi saxixa bàyyi booba xamaguma ko woon donte nag alhamdulilah bi tawfiqi wax ju ñaaw moom mosuñu koo wax waaye yàgg nañoo dégg ñu koy waxal wax yu ñaaw ñu gëm loolu moom moom moom dund naa ko man ñu gëm loola donte man waxuma ko nag gëm nga nag ànd ak weddiwuma ko noppi wala waaye bi ñu ko liir li ci lay xam ne ndekete ki nit ñiy wax ak ki ci téere yi bokkul moo tax abu ishaq al-Huwayni bi mu liiree dafa miir mu ni kii faw ma xoole ko mu doon kon ñooñu man damaa jàpp ni ñaari xeeti nit lañ ba ñett am na koo xamante ni daa xamut kooku dañ koy wax ni jugal nga jéem a xam ndax tawati ñàkk a xam moom xam rek a koy faj ndax boo xamee rek di nga wér ku xam rek xam moo tax ñu tuddee xam xam boo xamee rek xam ñaareelu tomb bi mooy koo xamante ni moom am mbooloo ma tax muy wax loolu la shakka ni am mbooloom la bëgg a défendre wala xëy nag péetéem ci Cheikh Albani du lool lool lool man damaa jàpp ni maanuteem waroon na koo may su fekkee li muy woote wu dëgg la bañ a wax lu ñaaw ndax ragal naa ni bari na ñoo xam ni am na ñu dul seeni péete comme ni ñu koy faral defee doonte du péete par parloo waaye la shakka am na kenn ku nekk koo xam ni moom fi mu àgg ci sa xol ci xam-xam yàlla rek moo ko xam te loolu mooy bëgg borom xam-xam yi xëy na keneen mën na laa bañ a yegg foofa te du tax nga wax ci ko lu ñaaw kon maanu te war naa mën a yegg nit ki muy bañ a wax lu ñaaw ji benn bi ci des wala ñetteelu nit bi mooy koo xamante ni maanaam moom yàlla dafa def moom xeex sunna ci boppam moo ko tax a jóg loolu nag su ma ko waxee bu mu rëy ci yéen wallahi am na ñoo xamante ni bi si taari sunna mbubbam sunna lan solta dañuy xeex sunna loolu moom maa leen ko wax loolu moom lu am la donte nag boo ko waxee di nga wax lu rëy wala nga wax lu bees waaye loola moom ku yàgg ci saaxa bi da nga xam loolu kon yooyu yëpp ay njuumte la rek li ma jàpp mooy la shakka ku ko taana di nga xam ne taana nga mbër te it kuy la te bu yàlla rek taxee ngay wax di nga xam ni kii moom tàkkoon nag duñu taxaw mukk ni Cheikh Nasir moom maasum la koo xamante ni masala bu moom sax da koy waxal bu bopp nee na li may taalif nekkul wax yu min asama day laaj te jiidaat ak a beesalaat ak a loolu wax naa leen mooy sabab ay téeréem di yeex a génn kon daal li ma bëgg a wax foofu moom mooy ay njuumte la rek waaye la shakka ni moom loolu jëru sax di tontu wax kat ne law kullu kalbin awa alqamtahu xajaran la asbaha alxajar misqaalan bi dinaar bu doon xaj bu ne mbaw nga ne ko tellu xeer bu yàggee di nga bëgg a jënd xeer sax xeer yi jeex ndax da ngay sànni lu bari kon jërul tontu wax jooju wallahu a'lam waaw ñettal boykat damay laaj est-ce que ñooñu nga xamante ne dañoo son boobu suñu wala lëndëma bi suñu taxaw danoo fe ne diw la ak diw ak diw yéen ñi nga xam yeneen roxam yéen ñi nga parce que tey Déet ñun duñuy bëri.
parce que loolu damay wax parce que ñi nga xamante ne tey yow.
da ngay tëj ba tëj ba taxaw ndax waxtu bi.
tey par exemple da ngay gis benn waay benn benn boo xam day day yokk na day bokk naa suuf amaan na xamagul dara. mais bu dalee ci kaw ñoom. tey bon alors que ñun mën nañ ci jox lu la dëpp. mais est ce que yéen ñi waroon mën leen moom ne diw ak diw ak diw kañ jot sama xaw. wala alors que daal man jàpp ma ni loolu mooy doxalin bi la nekkoon doxalin borom xam-xam yi mooy su ma jàppee ni Cheikh Ndiaye mii day moom ma nga ca euh, caaro yi di yàq ala sabilil misaal sama waru gar moom mooy jug ak sama tànk dem ba ca Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye jàng na njàng na du nuy borom xam-xam ay ndongalam nan toog maa ngi moom bu dee li ma jàpp lu wér la kon war naa ko mën a ñemee défendre ñu toog munaqasha ilmiyan su boobaa bu yàlla dara def tawfiq dégg mën naa fee borom xam-xam noonu lañ doon defante bindante ay lettre leerlante ku mel Cheikh Albani tontonteem yu bari bul yaakaar day jóge di déno- dénoncé waate déedéet ku jàng dundam da nga gis ni balaa dénoncé kenn dana ko bind lettre ne ah nangam ji nangam ji nangam ji nangam ji boo deltu gannaaw xëy boo déglu gannaaw wala nga jàpp ni boog yow li nga jàpp parce que am na koo xam dafa lànk bañ a deltu gannaaw am na koo xam dafa jàpp ni lim jàpp mooy li wér parce que moom it borom xam-xam la loola bu ko defee Cheikh Nasir doo ko dénoncé amaa déno lu jur fitna tamit yooyu tamit daanaka xaw koo jar parce que daaw ñun ñëpp ñoo ko bokk mbaax rek lañ bëgg te ndaw yi tamit xër rek leen jàpp foofu nag fi laay lancé waat benn message bu may jox ñëpp ñaari seex a ngi yu ànd muy xër ak xam-xam ñaari seex a ngi yu bokk ndey ak baay muy xër ak xam-xam xër ak xam-xam nag bis buñ bëggee jàmm na xam-xam nekk mag xër nekk rak buñ demee jàkk ja xam-xam jiite xër nekk ib naa ib mu ne xam buñ bëggee jàmm ndaw ñi nag li yàq sunu daawa mooy dañoo bëgg a jël xër def ko mu nekk mag jël xër def ko mu nekk imaam bu ko defee julli gu jamat la ñuy jural ndax misaal mi leer na kon dañuy jël xam-xam mu nekk imaam di gindi xir topp ci xam yi ak yooyu yëpp bu fekkee xam-xam am na daanaka du amee na loolu allahu taala jazakallah xeyran aboubacar sarr waaw alhamdulilah incha allah xam naa laaj bi rek ci wàllu partenariat mbokk yi islam ñu gisee liggéeyu jigéen albani ak xam-xamam ak taxawaay ak ñeenteelu soxna bi tuddoon ak bi doon liggéey sa femme
naam laaj bi dafa laaj ci na ma def
islam ñu gisee liggéeyu jigéen waaw ak albani moom taxawaayam si ñeenteelu soxna bi nekkoon sa femme la alhamdulilah ala kulli xaal ndax sage-femme la ku doon génn di liggéeyi wala ci kër gi la nekkoon loola moom def na moom lënt ba léegi waaye nag amul werante ci sage-femme la woon moom amma jëm ñi nag jigéen génn liggéeyi laa chaque l'islam terewu ko l'islam terewu ko waaye nag diglewu ko it nag lu dul bi shurut islam waxul jigéen ñi bu nu génn liggéeyi islam dani wa qarna fi buyutikunna sax leen ca biir kër yi kon mooy bul génn dem fenn jàkka mu ni jullee sa kër a gën seeti mbooloo ma yaakaar naa am na leeral yu bari yuñ ci def ak yu borom xam-xam suñuy borom xam-xam leeral nañ ci ci war ne jigéen daa war a toog ci këram amma bu ñu demee ba société bi gis ni aaja woon a jigéen liggéey mbaa ndaw si yëg ni aaja woon a liggéey mbaa borom kër gi yëg ni soxnaam kat aajo woon a mu liggéey maanaam daal aajo taxaw na kon liggéey du caagi damay jékki-jékki rek liggéey fu mel ni Saoud da ngay gis jigéen mën na am ay diplôme sax ñu tëj ko ci kër gi di fay ay diplôme pour mu bañ a liggéey ndax jàpp nañ jigéen warul génn dem fenn wala bokk li ëpp ci ay gox foofu waaye bu dee jigéen ji aajo woon a liggéey la shakka ni l'islam buntu yombal da koy ubbi lu bari dana ko bàyyi mu génn waaye bi shuruu sart ya nag man dama gëm ni sàmm ko moom illa man rahima rabbul alamin yomut bu dee jigéen nag ci borom këram ànd buy génn sol colkak lislaam te colkak lislaam yombu la génn liggéey su demee bu mu jaxasoog ay góor loola bokkati ci li gën a jafe bu mu wéet ak góor ni ko danduma ila axiri ma tadkur min ashuru kon daal dama bëgg a wax ni mën naa génn islam du du dikk ku xatar rek ayoo bu jigéen ci génn fekk aaja wonan ko naa sokk dana génn ay mbokk ay jamono laajoon nañ ma lu mel noonu ma ni leen waaw léegi misaal mi may joxe mooy su fekkente ni mbokk suñu yëpp nee nañ kenn du def sage-femme ma di leen laaj ab yahut nekk ci hôpital bee hôpital sàngam di opéré suñu soxna yeeg di ko rewle mook ndaw si def ay nabbi nabbi ay tuuti njuumte fekk na ko ci waaye mi ngi dëgër ci pas-pasam réew la sunu doom ñaari yi ci war a gëm la chakalité bi fokk kon islam dana ko may waaye nag charte yooyu moom faaw ko daje bu sart yooyu mën ta daje jigéen ñi dagal mu génn liggéey ak liggéey bu wàcc wallahu tey rek la léegi dem fay
léegi alhamdulilah xam naa si tënk rek quoi comme te waxtu bi mu ngi mu ngi jege si bu baax léegi dafa am benn kese bu mu déglu bu Cheikh Nafi benn waay di ko téléphoné. di ko waaw waaw. léegi après mu koy wax ne ko maanaam di ko delluwaat di wax ni jullit ñi dañoo war a nekk benn. dafa nekk benn boobule moo tax maanaam loolu islam yi saa su ne ñu leen di nappaay. léegi après si loolu muy muy delloo waa ji delluwaat di ñaaxaat di wax ne foog jullit ñu am benn amir boo xamante moo leen di. islam lu mu ñaaxee bu jullit ñu nekk benn léegi Cheikh Nassir daf ko dëggal loolu ba pare mais mu wax ko mu laaj ko mu ne ko léegi mbir mi nekkul foofu mu ne que léegi li ci am li li li ci am solo mooy ñu xool kooku di jiite lan lay jiite jullit bi maanaam du kàddu jiite jiite ak bennoo rek mooy jiital islam mais la war a boole nit ñi ñu nekk benn loolu dafa nekk loo xamante ne nii borom santan daf ko gërëm mu nekk loolu mënu warul nekk lu dul diine bi am yenn saasal moom la nekkoon ak saxaaba di kiram léegi ginnaaw loolu mu nekk ginnaaw loolu nag bu fekkante taxaw nañ si loolu diine boobu ñu delluwaat si loolu bila chaque jullit ñi dinañ nekk benn ndaxte ñoo bokk lu ñuy sa fas mais aussi ñoo bokk loo xamante ne nii moom la ñuy dundee gis nga ginnaaw loolu mu nekk ma laaj la si adduna bi am na ay réew yu ñu wax ñu ngi dundee ñu ngi ñu ngi ñu ngi attee charia mu nekk ah gañ mu nekk ma laaj la est-ce que gis nga ci boo xamante ne nii maanaam xaqiqatan ñoom ñu ngi attee réellement diine bi yental saa salaam bàyyi ñu woon waa ji toog ak biir bu yàgg mu ne ko dégg dégg de boo ci gis rek wala boo ci xool rek di nga gis ne am na ay ñoomte yu bari yu ci nekk yuñ ciy jël ak yuñ ciy bàyyi mu ne ko kon nag kon li ñu jàngal mooy ne ñun tolluñu ko waaye fi ñu toll mooy maanaam wàllu tafsiya boobu le mooy cheikh bi du mu yàggal son sànq bu baax a baax wane ne ñun fi ñu toll mooy ñun ñu delluwaat xam diini bi xamante ne saa saa moom ñu nekkoon ak saxaaba yi kiram ndaxte ba muy wax si fiqatu naajiya dafa joxe misaal dafa joxe dafa joxe maanaam mes masal ne ñii bon santaan la gërëm mooy ñi xamante ne nii ñoom ñoo nekk si li ma nekk tey jii man ak samay saxaaba mu ne kon loolu mooy diine kon mu ne kon lu ñu mënta tuddee diine wala ñuy tuddee amir wala mbolok yu demee doon yu demee noonu le tant que dëppoowul ak lii de loolu aw tur rek lay nekk waaye loolu yitteelu yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne nag lii nag tasfiya bii nag mbiri borom xam-xam yi la mu ne lii nag mbiri borom xam-xam yi la gis nga kon wane ne kon mbir mi dëgg-dëgg maanaam xam la mais ginnaaw xam bi maanaam ñu jëfe ko def ci boobu moom mooy tax insha allah ñun ñëpp ñu bokk lu ñu lu ñu nekkee lu ñu fas mooy xam bi mais lu ñu nekkee mooy li xamante moom mooy jëfe bi ñaan borom santaan bu defal ñu tawfeex yóbbal ñu loolu le ginnaaw loolu mooy benn benn wax bu mooy yàgg bu ma yàggoon di dégg mooy ne dafa am ñu ne dafa am benn dëkk si dëkk Jaziraay ñu ne dafa Cheikh Nassir yenn si ay borom xam-xam sunna yi dañoo géntandoo benn guddi yendal sallallahu alayhi wa sallam mu leen di wax ne man di dénk Nasruddin Albani ndaxte moom mooy sàmm sama sunna si li nga xamante mooy seen jamono ji ma ko doon yàgg dégg nag mais wóoruma naa ko wér na wala déet ma doon laaj naa ko loolu wax boobu wér na incha allah
alhamdulilah amaa bu dee jëmmi li mujj moom ak wéram loolu moom moom daanaka jàngal nga ma tey moom bind lu beex lu ma déggal loolu moom daanaka lu may jariñal maa ngi koy doog a dégg li awali baras loolu maa ngi koy doog a dégg amaa wér nag wér moom doo mosu dégg lay si xam na bu dee li nga leer alhamdulilah leeral bu am solo la waaye ba léegi maa ngi baamtuwaat rek bu ngeen bàyyee xel waxtam ni mu tënkoo ci nangoo xam jëfe gën laa yitteel leneen lu dul xam jëfe xam-xam nekk imaam xir topp ci nekk naay laa shakka ni yii mooy yi nga xam ne boo xoolee wax yëpp ci la taw beneen bi ci des mooy dëgg la tey jamono bi adduna bi ñu ngi wax benno benno dama ni teen bi fii mi ngi nekk benn ñun ñëpp ñu cay rootee laa shakka ni ndox ma ñuy génne mel na ndox la waaye teen bi bu nekkul benn suñuy ndox du nuru paan yi bu amee lu ci taqit suñuy ndab loolu nañ ci bàyyi xel bu baax kon dañoo war a delluwaat ca manabia ya muy source ya kii bu tànkee xonq le ma tànk weex le te ndox mi menn la am na lu xew la xew mooy sama paan a taq wala fi ndox mi jaar ba yegg si mën a taq loolu la waa ji doon wax rek misaal la doon joxe xamatuma ci ban muxaadara laa ko doon joxe misaal di ko leeral fa waaja doon leeralee njugub ba nga xam ni dañ koo dessiné dessin bu njëkk jox ko élèves yi di leen dessiné ñu dessiné ko ñu jël dessiné classe bu njëkk bi jox ko deuxième classe bi ñu pare ñu jël dessiné deuxième classe balaa mooy ci classe bu mujj ba mbaam la nurul lu tax loolu parce que original ba léegi ma nga denc léegi yow en tant que yow professeur bii corrigé soo bëggee corrigé lu jub nooy def original bu ngay jëlee waaye na nga am kon loolu ak soññe la buy wane wax dëgg yàlla buñ bëggee delluwaat ca dund googa xam jëfee yaru topp borom xam-xam yi di leen jéggal xam jëfe gën noo yitteel leneen lu dul moom nangoo jàng nangoo yaru soobaa laa chaque ni yoon day lekk benn man xëj na waaw léegi tey léegi li nga xam ne moom la mbokk ministre ci Albanie Cheikh Nasir effectivement ay borom saxal nañ ko ci kaset mu ngi amee woon Algérie ci parti bi ñuy wax tis foofu ay borom xam gént loolu gis loolu la léegi waxtu wi jot naa dañuy noppi julli am na fi ay question yu def ku yàkkam ci wujjite mu xaar ah loolu de xam nga
day dellu ci tuut boo toppee sis la fa mu jógee ba tax mu xooloo maanaam day dugg coolo kañaan mooy maanaam la nit ki am maanaam day fekk yéene ko pour man loolu laa jàpp. ndax bu doon ay diplôme la ñuy xoolee niveau boo ñu génnee ci wàllu cadre ni nga dem ci wàllu lu mel ni ki armation am na ñoo xam ne soo tuddoon soo tuddoon seen tur tey amuñu ceinture waaye am na niveau fa ñu nekk niveau bu koy bu weesu ñu am seen tur am wala ay dan kon loolu dañ ci war a am li nga xam ne mooy ragal yàlla. sant ci yàlla te xam ne lu yàlla moo ko def benn bi gis mooy mbir mi tamit damay wax li mbokk mi bam sànq mooy jotaay bi nii nii alhamdulilah damay sant yàlla parce que ñu fi nekk ñëpp ay daanaka ay shabab ay xay ay xay lañu. waaye soo dellu woon ci ginnaaw tey benn mbokk wax na fi benn maanaam mbokk bi dama waxtaan nee na ñii xeex sunna ay dañuy son bu sun di xeex sunna dëgg la. parce que gis nga thème bi wala mawdu bi Alioune Gueye rahimahullah def na ko fi ay yoon yoon yoon yoon. mais ça li ñu bëgg mooy mu am njeexit c'est-à-dire am na ñoo xam ne ñoo gën a xam kan mooy naasu albani waaye seen problème mooy dañu am xat-xat xol boo xam ne mënuñu ubbeeku seen dënn pour mën a jëriñ ci moom. te ñii xeex sunna effectivement dañuy sonn bu sunna di xeex sunna parce que faraku naasu din albani ak reis bu ñu tuddee albani rek nga tudd benn borom ci wetam pour jéem a gam-gam la loolu laa bëgg ñu mu deñ ñu ragal ci yàlla yemale ñëpp te xam ne ngëneel ci yàlla nekk yàlla ñu mu yëkkati leen yëkkati ba faw leen di topp mooy li nga xam ne mooy sellal lu am solo la maanaam li ñu manque gis nga wax bi dafa bëri li ñu war a def mooy dem parce que dañu limité wu limité wu ba dañu koo xam ne day commencé day góorgóorlu ci quran mais gis nga bu taree quran nga ngay bëgg maanaam nga dama yàlla bal ngay bëgg wàccu ndax ay xota kese la def pour moom quran moom moo fi sut masalan kooku du ñàkk sellal wala nga benn xale bu ndaw parce que yaa ko si jiib ci sunna parce que yow sa déggub arab moo la nax mais moo la gën a dégg xam-xam day dellu ci ñàkk sellal ci kaw ba suuf nag suñu feebar li tax ñu tardé lenn la mooy manque ixlaas maa ngi commencé mboobu dénk mbokki mbir mi jàngal ak jëfe jiitu ci mbir mi taxul nga peeg mbir mi benn docteur ba exemple bu ndaw rek dafa ñëw ci benn jàpp bu nekk foire benn xale bu ndaw moo doon def benn leeral moom docteur la dem na ci biir réew arab yi jàng ñëw waaye masala bi xale bi doon jàngi moom xeeb xale bi moo tax mu ne xale bi yéen ni ngeen di wax ah yéen ni ngeen di wax xamu leen ko da ngeen di fortaat di wax fekk xale bi la muy wax dafa dem gëstu ku ci ay téere sunna yu wér ñëw toog da làq kaye bi fi mu indi ay dalil mu daal di koy làq ci ginnaaw xale bi génn ay fooy bi ak kaye bi nekk góor kër li may wax boo demee téere sàngam bi dafa mujj rus génn jàkk ji daw maanaam nañ bàyyi xeebaate bu ne kii toppandoo waa sunna dagan na nit ku ñëw tuub bees ku tuub bees xamul lu ñu jàppe xamul lu ñu kooku ndax du toppandoo day toppandoo parce que la muy toppandoo sunna la bul ne toppandoo ban façon toppandoo il faut que mbir yi leer ki nga xam ne amul mustawa gis ku ëpp niveau di ko toppandoo ci sunna ma jox la benn misaal man du nekk naa ci yu bëree bëri mosuma gis xaalis bi yox ci wàllu nisfu sax masalan man man bala may du ma dégg rek jëfe damay leer ne lii ma dama koy gis téere dal ko jëfe kër ba ma ci yemee ma ah ndekete kon gars yi topp ndaw ñu ket li ñuy def sunna la ak masala yu bëree bëri maa ngi jégalu mbokk yi incha allah kon li may ñaan mbokk yi mooy li mbokk mi tënkër mooy nangoo jàng te bàyyi parparloo bi parparloo dañ fi war a jógee moo ñu tàddal xeebaate parparloo ak gën a lay doomu aadama yal nañu yàlla jégal incha allah ñu ngi jégal salaamaaleykum wa rahmatulah
nit ki yëgee ni lii am jafe-jafe ci moom lay bàyyi ko su waxee day laaj yàlla yàlla dafa taw sallallahu alayhi wa sallam
salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. xam naa noonu ngi jéggalu ci tawat ji nag laa ba asatahun insha allah. comme ni ma la ko junjee sànq danoo am baxte bu ñu ay mbokk doon waajaloo ci dundu Cheikh Nasiruddin Albani mu bokkoon ci yéen it ma amoon mooy waxtu woo xam ni waajal naa ko ba noppi dinaa dinaa leen woo. ngir laaj leen ay laaj ci dund Cheikh Albani loo xam ne xëy na yenn yi nu bëggoon leen koo laaj yeneen ci amoon nañu am lënt mu am ci ñun bokk na ci laaj yi ci njëkk mooy ndax jotoon ngeen a am ay alaaqaat ci ak dundam moo xam gis gi wala bindante ay lettre wala ci jëflante ak ci fànn gu mën a doone loolu mu xam naa mooy laaj bi la
jëriñu ci moom moom wax dëgg yàlla am na ci ay téeréem say boobu ne moo ci jiitu am na it boobam joo xam ne wax dëgg yàlla ñoo bokkoon gannaaw si jamono yu nekk muy waxtaan ci góor gi jamono yu nekk lu bees ci ay téeréem wala ay mbindam ñaare bu ma sàmm nekk da dañu ko andi ak jamono yooyu dañu fàttali ne mii nekkoon am na ñun ñu nekk fàttali ak mu nekk nag daal la ñëw umbasi daa ko umbasi boobu ne maa dina la gën a yàgg ndax ci màgg mu yàgg mu ko yàgg miin gi mu miin ci kër Moussa yi fii buñ ko invité bu demee foofu ab daf su lay doon bu ko jógee dem ci dëgg des fàttaliku naa ne jamono yooyu daal mosuma fàttaliku na fekk na maa dina lu say boobu ne dar su mu def nañ fekk naa ko ak ku mën a doon ci kër yi ko doon defee léeg-léeg sax day daan génn ci biir dëkk bi boo xam ne fu sori la bu dee lu mel ni guddi wala yu mel noonu lu mel boobu yëpp day leer ndax courant bi mel noonu léegi nit ñi dañuy bëri ba du mën a nekk biir kër dañuy dem koo xam ne bu soree sori ba yaatu la ay laaj ak i tontu yu bëree bëri ci jamono yooyu wax dëgg yàlla am nañ ci moom am na masala boo xam ne maa ngi ko bind sama téere bi ma doon bind ci mille neuf cent quatre-vingt-huit mu aju ci al kutub sitta manaahijuhaa wa juhuudul ulamaa fi xidmatihaa masala boo xam ne xawoon naa xawoon na maa sonal lool lool maa ngi ko bind sax ci téere bi ak at bu ko bu ko doon laajee yàlla dogal ko julli ci xaram bi rek far noonu ñaar moo bokk nekk ci kàtt bi gëm doxul sama diggante moom biñ sama laaj mu dem ba laaj masala bi lam ma ca tontu ma daal di koy bind ci téere ba ak at loolu mi ngi ci ba léegi beneen bi ci des mooy ci at moom comme ma tudd muy quatre-vingt-huit ma ca tegu mooy quatre-vingt-neuf fekk jóge nañ ci kulliyatul xadis jeexal nañ ko dugg ci la saasul olyan suma xarit yi ñu dëkk Madina amoon na ci woon ñaar ñoo xam ne jóge woon na loolu ak moo bokk classe moo bokk nañ jàngee léegi nag ñu ngi tàggee ci vacance bi ñu def ci suuf sama nga xam ne day am fukki fan ak juróom yoo xam ne mooy daal. tukki nañu am naan di demee maa ngi ñëw ñu bokk dal ci hôtel bi ñu dal ci suuf dëpp ñu xëyee ci cheikh bi la ñuy toog ci jotaayam saa bu ubbee ba dañu nekk bu teew muy fàttu ñu delluwaat mu ne comme fàttu ba subaa nii ba suñu vacance boobu jeex loolu daal say boo ma ne bu fekkee ay daje la ci wàllu jëmm. léegi daje yooyu mooy yi ci ëpp ndax maa nag daje loo xam ne si daje xam-xam rek la moom wax dëgg yàlla ay téere moom jëriñ la ci jëriñ yu bare bare bare bare dañu gàcce tam yal na ko yàlla yërëm
alhamdulilah ñaareelu laaj moom mooy dama am am lënt ci xam naa li ma jot a gis ci ay eh, taalif yoo xam ay borom yi xam-xam taalif nañ ko ci wàllu dundam dinañ tudd njabootam waaye ci gëstu yi ma doon def damaa génnee ko ni du ma gis kenn ci doom yi koo xam ni wax nañ ni xëy na doon na ko ci xam-xam wala yu demee noonu ci li ma jot a jàpp boog Euh, koo xam ne doon na ko ci xam-xam ba mel ni ndongo yi nga xam ne xëy na ñun li ñuy gàtt gàtt àll wa jot nañ leen a xam wala ñu gis seeni bind. ma doon laaj ndax ci doom yi am na ci koo xam ne xëy na xaw na ci fës tey jii ci wàllu xam-xam maanaam mel ni ku ko doon ci xam-xam dara ala sabilil misaal.
ci ay doomam di di ñëwoon kenn doon wàllu xam-xam dëgg la ay ay ndaw fa lañ koy jàng ci lu mu xam lañ waaye nag it àgg ba wóor nga àggoo rek tool nga ko laaj la tey yu bëree bëri yooyu daf cee bokk ay at yàpp naa ne jëli na yàlla man ko doon boobu ndax taalu bi yu mag yi sax ñoo leen mag man moo tax sooy boobu li taalu bi jëriñoo ci moom maanaam li doom jëriñoo ci moom ndax ko yow moom nga toog moom man man dina xam mooy ab raxmaan boobu ñu koy laaj def élément bi ko bokk ab raxmaan boobu man ci Mouhamad moom laa doon jàngal ko te du ma ci dinañ ci des mooy Abdul Musawwir ñett yooyu moom ñoom laa xam
ma desee leeral laaj bi sax jublu ma ci sax xëy na doon na ko ba mel ni Cheikh Nasir ci xam-xam waaye ndax rek wax dëgg yàlla jamono ji moom mën nañ leen a tuddee ay boroomi xam-xam rek ci noonu di gàttal noonu.
xam nañu yëpp maanaam laa ko layal lañ maanaam ci leen yëpp waaye nag da leen nag taalu bi nga xam ne dañoo jàngee ci moom naam.
dañu leen a gën a fees sooy bëgg a ëpp leen xam-xam jamono ji ñu toll naam.
yàlla ñoo ëpp booy xool da ngay gis ne ñu ëpp ci lañ jëriñ ci ñoom mooy taalu bi nga xam ne dañoo takkoo woon ak moom ndax bu fàtte ne doom bi turu bu juddoo mu ngay dem ci jaami njàngam école bu ko jógee ma ngay dem dugg chef jaamea léegi jaamea maanaam balaa doon bi mara def ak moom aywa waaw.
jaaree ci benn dañ ko gaaw a def waaw beneen laaj bi moom mooy ci ndongo yi nga xamante ni jot na koo am am na ñàkkul ñoo xam ne xam nañ leen ci wala euh, gis nañ ci ay mbind seeni tur kan nga ci jàpp ni moom mooy ki ci gënoon a féete euh, maanaam gën a jege Cheikh Nasir ci wàllu xam-xam ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi koy toll jamono bi moo xam Ali Hassan moo xam Abu Ishaq ñoom euh, ak ñi nga xam jot nañ leen cee xam waaw Hmm.
waaw comme naa nga boo gis xam ne ci ci jëriñu lool lool lool dañ ko ci lañ bokk Mhm.
Mashkour Hassan Salman Mhm.
boobu ci ñu gën a jëriñ ci moom ci la bokk Mhm.
Ali Hassan ñëpp xam nañ ko Mhm.
Salimul Hilaali nag noonu Mhm.
ñeent ñooñu daal buñ ci boolee ak Abu Malik Muhammad Abu Chakra Mhm.
nañ ci lañ ay ñi gën a jëriñ ci moom lañ bokk ak ñeneen ñu bari ñoo xam ci réew arab yi bokk nañ Muhammad ibn Ibrahim Cheybani bokk xam ne moo bind téere Xayaatul Albani Mhm.
wa aataaru ko téere bu mag a mag la boo xam ne ñaari mu jàll la Mhm.
boobu jënd jënd na ci dundu Cheikh bi war ko ko jàng jàng ko ci kanam Mhm.
Cheikh wax wax ci xalaatam ñooñu daal ñooy ñi ngi ci ci tool bi waaye nag bee ci xóot ak ci gëstu ci wàllu xam-xam Mhm.
jàpp naa ne mashhur ak Abu Ishaq Mhm.
dañ ci àgg dañ ci wàllu xadis ak taxdir di téere yu mel noonu Mhm.
ñi ci des àgguñu Mhm.
am na ci am na ci nag ñoo xam ne ñoo tàmbali woon jàmbaare loolu ba am tur Mhm.
am tur boobu xam na ne ñàkkal na leen jot Mhm.
ndax seen i boppam su doon xóotee Mhm.
xóotee dul noonu Mhm.
mën naa cee boole Ali Hassan mën cee boole Salim al Hilali ndax ñoom ñaar ñooñu ñooy dimbal leen ci dundu Cheikh Nasir tey daaru leen Mhm.
loola daal da leen di ñàkkal jot seen diggante ak ci délégation yu bari yooyu ci wàllu Mhm.
ndax seenu xóotal ci wàllu wax ak jafe waaw alhamdulilah ala kulli xaal am naa masala yu ma jàppoon sax laaj ko waaye comme da ngeen a xaw a tawat dañ leen di jéggal laaj yooyu leneen noo lay wet ko moom moom solo ah bismillah dama wax dëgg jaaj lañ ko aywa naam kon laaj loo xam ne mën nga koo defal Cheikh Nasir waaye fa lay doon rek mën na ak moo masalab mihraab ci jàng ñett yi daal xam naa ne xaw na ma defum lënt ci ay njàngale moom Cheikh Nasir
waaw xam naa lenn ñaareel bi ñu ci des. ñaareel mbooloo bi moom borom xam-xam ci kaw dañoo bari sax moom. te bu ñu xoolee li koy tax li ko leeral lu ma ne sa dégg la. boo def boo def boobu moom bi ko. day nit mën na yore lu ci bëri ba daal di ko xam dinaa saa ko sol li ci gis taxaw. kon jàpp na islam maanaam tëj bunt boobu sant dara ay dafa bokk ci ci islam. ñu tëj bunt boobu moo gën. al imam Shafi day wax ci lii rek yox al um. mu ne li waral loolu mooy pour jullit yi dara nekk benn. loolu moo tax waaye su amul mën nañu mën naa indi problème bu jullit yi dara nekk benn mooy mooy kon al imam ci rek mën nga wut sa imam ba li saa bu ñu dal ba léegi di taxaw julli. loolu ci ci li tax ci tere ko la. parce que lu bare bari saxaaba yi ñoo xam ne loolu dañ ko doon tere ginnaaw daawe oo di. parce que ay ba yooyu nga xam ne daw nañu leen moom moo solo bu leer. xanaa yeneen masala yi ci des wax dëgg yàlla. daa chaque ne borom xam-xam mën a doon bañ ca liggéey doon. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jihaad yi boo xamee ne noona la am na ñaari yoon fekk na juum na ginnaaw ko yooyu jihaad la am na benn yoon. waaw nag borom xam-xam bu mu am ci jihaadaat yoo xam ne benn yoon la ci am. donte or bi moom jàpp ma ne sax yëpp yokku wuute la. jàpp jàpp ma ne xataa la waaye day masala boo xam ne masala bi ci boppam moo jafe. ndax man moom ci daree baax suul nekk day boo ma ne xanaa ma ñaata at la waaye ba léegi gis nga ci loo xam ne moom laa mën a sukkandiku ci daganam yéen ñaata jënd ak dara. dama ci def daal mooy taw. maanaam bu ma ko jëfandikoo ci jël ko jël ko jox muy tax ma ko def. waaye mënu maa hectare dafa ma am wala ma hectare dafa dagal yàlla
xam naa comme nun dañ di ay ndongoy xam-xam te masala bi dañ koy laaj lu bare dama xamul ñi koy laaj am lënt tax ñi koy laaj wala wax yu bari yee tax ah léegi ci bunt boobu lan mooy li nga xam ne moom nga ñu ciy dénk waaw ci léeg-léeg am na nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla mbaax rek lañ bëgg nag man am na ñoo koy laaj ñoo xam ne xam naa ci ñoom ni lii njàpp ni mooy li gën a wér rek lan soxla ñoom ak mbaax lañ ci jub loolu moom xam naa ko ci ñoom wala rafet nañ ko njot ci ñoom ah waaw donte nag man ahadis yi nga xam ne léeg-léeg dinañ ko jàngale ba laal ko wax ju mel ni ji nga tontu daanaka laa ci daan tontu ndax mas nañ koo dégg ci seen i leeral wane ni daal ba léegi xëy na borom xam-xam yi am nañ ceeg wuute dagan geeg xaram gi mënee si cee wax lii ànd ak nag man dama ci daan teg ni daal képp koo gis ni mën na kaa moytandiku daal moytandiku ko ci buntu aw ma ci lu ma leer la koy dugal moo gën. waaw. mixraab moom it daanaka kon àtte boobu dañ koy jox rek.
déedéet nag mixraab moom man jàpp naa ne ci masaalik mursala yi la bokk. parce que waaye bari am na ci borom xam-xam yoo xam ne si biir base bi dina am mixraab ak sooro. dafa am lu ñu tuddee maslaxa mursala ci sharia. mooy mbir yoo xam ne moom ci boppam du mooy jaamu yàlla ci mais moyen bu ñu jëfandikoo pour jaamu yàlla. moyen boobu su fekkee ne sharia di ko di ko digle. wala mu ñëw di ko tere. ba noppi ñu gis ne am na njariñ. boobu bu boobaa maslaxa mursala lañ koy def. maanaam bu amoon texte bu koy tere. kon bu boobaa mu dagal. bu amee texte bu koy digle itam bu boobaa benn mu nekk waa ji wala mu nekk sunna. waaye ginnaaw amul benn texte boo xam ne daf koy ilxa wala mu koy inqibaa. ba noppi am na njariñ. boobu maslaxa mursala lañ koy def. sooroor bi nit ki mën naa wàcc bërëb. mu xam fan la jàkka ji réer. xam fa gan. wax ko kii jëm mu xool biir ab sooroor mu ne ah jàkka ji dafa nga ne. maslaxa la. mixraab bi nit ki mën naa mënoon naa dem ba dugg si jàkka sax bu xam fan la jëm la réer. waaye ci gisul mixraab bi rek. maslaxa la bu fekkee dafay pour wax jàll ma